waaw coup d'envoi match baa ngi noonu entre Yaakaar ak Mama Ngéej 0-0 Yaakaar moo sol maay bleu comme ni ngeen ko gisee nii Mama Ngéej moo sol maay vert yi waaw match bu neex ñoom ñaari ki bi xamante nañ daa Yaakaar dóor na ko fi attention 0-0 coup franc corner très bien tiré corner encore match bu neex gis ngeen ko noonu fii aérien bi waaw ah, suñu stade bi ñaaw na terrain basket bi sax moo ñu dàqale ko <laughs> terrain basket bi sax moo dàq stade bi maanaam buñ ñu ko laal laaloon tuuti verte rek même gazon yi deux mille cinq cent yi baax na attention corner qui se succède deuxième corner successif de l'AIC Mame Gueye sànq seeni def na fi arrêt bu yéeme bandit. Attention, corner encore. Corner très bien tiré. C'est une de l'Oadal. C'est une de Oh là là Quel gardien Wa ni capté bal bi Très bonne lecture. Niatale sank xolal na ma ndor ko deux. Alors qu'il avait l'avantage, quelle remontada de de Cucu xam actuellement mo ngi tolok yaakar 3 points 3 points bo ci bolé 1 point mu am ni yaakar mo jëlagum gum pool bi 1 point maam ngeen nak mo ngi si deuxième point donc ñaar tali ndare loolu bu neex. attention. remise de balle ba sa camp kan, ah waay ni waay l'homme di match. L'homme du match pour l'instant. L'homme du match pour l'instant. <laughs> gardien expérience. gardien yaa nga góolu gardien yaa nga xam équipe. gardien yaa nga xam dóor gardien yaa nga am placement. ay lu penabal bi mais ba léegi. waaw Séni pour l'instant mooy sauver son équipe de parce que maam ngeen am na fi deux balles cadrées yoo xamante ne nii su nekkuloon Séni dugg na. tiré par le numéro 90 à le président de la zone Youssou Touré zone 9 attention moo ngi noonu di jaaroo Youssou ñoo ngi lay béggee attention ko bi baaxul delloo waat a la ko bal bi génnagul de waaw génnagul de génnagul de wax nañ la de génn na quel contrôle de balle attention lawbe na gardien bi dugal na ko premier but le premier but de Mama Gueye oh là là

gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu naan sama tak tag sama ni dem oh attention kelbi il lo longtemps essayé booba léegi ñoo ngi am ay bal yo xam te ne si biir lañ koy dóor seeni mo doon genn seeni mo doon genn yaakar dañ ko wax ta dee seeni il a fait trois arrêts yo xamante ne ni c'est décisif bal yu cadré bal yu tang jël te teewul la koo oh là là le premier but de la Mama Mamangue face à yaakaar ne arbitre euh, sifflé na wah centre nañ directement si Lamine Lamine contre six personnes Lamine oo oh, réer na nangu nañ bal bi attention ba léegi la numéro 10 maa tey oh lala, guys, gars yi seen attaquant fa lañ ko jëlee jugal loolu la nga koo simulé kenn du ko may jugal. c'est quel Mama Ngej. Mama Ngej bi dañ koo téléchargé waat ça c'est pas Mama Ngej de Ibou Mangane. Mama Ngej bi ñu téléchargé la c'est pas le Mama Ngej de l'autre Mama oh Ngej. ça c'est un nouvel Mama Idriss Idriss. oh lala, Mama Ngej bu bees tàkk laay extraordinaire quel mais ñii xanaa dëkkuñ fii. maanaam la ñuy fubal maanaam la ñuy fubal. dañuy fubal nii nii nii gisaguma ko fi tey fubal bu set lañ oh dindi na ko. deux contre deux attention seeni oh, oh. o ngi leen siy génne ba léegi moom lañ si siy génne ba léegi. champ de mhm. buntu église. <laughs> buntu église buntu église foofu la champ de bataille maam fa la ñuy xaarante. bilaay xeer yi fa la ñuy dàqante. mais nag mais mais gëm naa ren mu changé gëm naa ren match bi gars yi duñ xeex. yaakaar ngay wax de. mais non gëm naa duñ xeex gëm naa yaa muy yaakaar maam nga gëm naa ren moom gars yi léegi supporters yi. Mhm. nañ ba nga xamante ne nii. Mhm. non gëm naa même. supporter amatul rek prince. ah waaw ayca espérons attention quelle bonne sortie bal bi génnagul bal bi jëli ko attention orienter na bal bi Lamine le gardien waroo ñëw loo fay def am na ku fa nekk ku la marqué gardien juum nga attention coup franc très bien placé peut-être le coup franc de légalisation. sama xel ñaaw mais gardien bi nuru ma gardien bu expérimenté ba sànq def na fi benn arrêt bu cool Lamine moo taxaw Sadio Mané Junior attention Sadio Mané Junior doomu nday Krépin oh là là Waouh. Aliou Cissé xamul dara loolu la gars yi wax Waly Bambey attention arbitre nee na pare na joxe na ses dernières instructions aux joueurs gardien baa ngi xool placement bi taxaw na si digg fi mu taxaw baax na mais bala gën a gaaw waaw loolu baaxul loolu respecté woo ko dóor bi c'est pas bon du tout loolu bu demoon sax du du du du gardien bal bi amul doole tous ya karpus ya karpus balon récupéré ba léegi digg bi yaa personne remise na ko bal bi récupéré waat na waaye kii tamit dina leen rey attention dem na dem na percuté na ñëwaat na teg na bal bi oh là là ay ba léegi moo ngi sa ginnaaw waaye lii rafet na waaye waaw waaw waaw yaakaar jommi na tey yaakaar jommi na tey yaakaar jommi na moo yaakaar xanaa gisul vidéo ba jëkk tey

oh là waaw entrée kii nag mooy waaw yaa ma nga mangaan dugg si léegi waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw seetlu nga loolu waaw ñaari joueurs yu expérimenté ñooy ñooy dugg waaw ñaari joueurs yu xam terrain bi waaye mangaan dugg na waaw l'homme qui gère esprit de Mama Ngej waaw bu am esprit d' équipe la bu bu am ñàkk li français bi naan il a le de la victoire mais aussi ku fair play gis nañ geste bu mu def face à ñaar tali wa xéxal na équipe am ba arbitre changé euh changé décision mu jëloon mu jóge aussi bañ xamé xamee affaire ni la démé aussi bokku na ci ñu doon wax nañ jouer bës na leen bës na leen bës na leen xoolal la sànq ñoo ko doon wax xeex yaa ngay commencé. xeex commencé na. xeex commencé na gars yi xaajante xeer fee. lu yaa ngay jolli. moo tax sécurité waroon naa sécurité bi jóg leen. attention gendarmerie waxoon naa ko mais bu leen fàtte de bataille bi. waaw champ de bataille. champ ko fàtte. waaw <laughs> ah, waxoon nañ la marché bu mag. pourtant nag maa doon xalaat ne duñ ko def Wow, ma la xalaat duñ ko def ren mais rusloo nañ ma waaw vraiment pourtant waxoon naa la kiri nañ ma bàyyi nañ ma waaw kiri oh la la eh, <laughs> Kiri, benn kiri <laughs> oh la la xeer yaa ngay jolli ay boy attention match bi sa poursuit ba léegi mangaan contre lamine derbi la ba léegi mangaan génn na si nee na ko ñëwal football nee na ko man mais day garaaw garaaw rek loqe na ko neen dara nee na da koo loqe loolu dara loolu dara Iba Ngane jógal Iba Ngane def nga effort ba toll foofu noonu donc mais nag mais mais léegi football ñoo ànd léegi football indiwul dara dul gaañu gaañu ak fere ah gaañu gaañu ak fere rek la yooku am na ku ñu ruus foofu laa ruus nañ ko Lamine rouge nañ ko. Lamine jël na rouge nga foog est-ce que du sarax bi. Lamine jël na rouge waaw. est-ce que du sarax bi mën na nekk sarax bi. lu ne mën na nekk ba léegi moo ngi xataraayu. Lamine jël na rouge. li ma la waxoon rek Prince. grand grand. tuuti rek tuuti rek waaw. Lamine jël na rouge. Prince li ma la ak lu mënti xew xeex dina am. waaw loolu waxoon nga ko. waaw wax dëgg neex yàlla waxoon xayaa nga waroon naa ni seen esprit. dina dépassé noonu. non c'est parce que match bi dafa yàgg am grandeur. attention arbitre ruus na suma juumul defe naa laamin nañu ruus suma juumul. jaru ko. match bi jeex na Ibou Mangane va perdre quand même. Ibou dafa provoqué lii comme ni ma la wax sànq mag la. Mhm. moom moo provoqué li xaw nii. maanaam laamin mënoon a gën a def attention rek bañoon koo laal sax bu ko neexee su ko defee lii yëpp du am mais xam nga rek joueur bu mag moo mel ni léegi ruus bi day pénaliser yaakaar pour match di ñëw parce que yaakaar. ñaari tali moom. waaw loolu loolu waaw ah, mën nekk sarax bi aussi. ñoom ñoo yor tuuti. taa bi kañ lay jeex. attention coup franc jeex na. ah Ngeej door na yaakaar 1-0. Thérèse xoolal côté Ngeej fayu na waaw côté bi. Eh, gars yi nañ moom. <laughs> rouge encore rouge encore beneen joueur te kooku tamit du seewaat. du seewaat te kooku du seewaat yéen a ngi yàq seen yéen yéen a ngi yàq. yéen a ngi yàq de attention. yéen a ngi yàq. yéen a ngi yàq de ki ñu rouge noonu tamit du seewaat match bi di ñëw. yéen a ngi yàq. gaa yaa ngi xataraay boo saa yaakaar yaa ngi dóor. yaakaar équipe bu ne dóor nga ko fi ñu nangul la ko. waaw buñ la dooree nangul nga ñibbi ci fair play bul bul wuyu si liñ leen di tuddee

donc ba léegi jeexagul y aura du danger. noonu la demee presse. mais presse message bi may lancé waaye yaakaar. Mhm. message bi ma leen di lancé. Mhm. équipe bu ne door nañ leen fi. jibile koñ ba koñ daw ba fu leen nekk bu ñu leen dóoree nañu nangu. su fair play dem ñibbi gaa yaa ngay xeex. presse ba xoon naa la ko nee naa la ñii duñ bàyyi. ndax du bàyyi yoonam. presse yi c'est lancé xonta lii dafa ñaaw. lii dafa ñaaw lii daf lii rafetlu wuñ ko. yaa ngi jolli waaw n'empêche que ñu nit dañ koy wane. waaw xeer ngay jolli gaa yaa ngay dóorante waxoon naa la ko presse. waxoon naa la ko nee naa la foo jaar ñu xeex. yaakaar dañ koo fubal fubal bu rafet. macha allah dóor ko victoire bu amul benn layam layam. waaw loolu moom dëgg la moom waaw dëgg yàlla. moom dëgg la sauf que cette action bi xam naa moo leen métti loolu si football la bokk zo saay saay leen di tàcc waa Maama Ngeej ñu ngi tàccu waa kii pour xam nga wan leen affaire bi fair play la mais nag ak lu mënti xew waaw champ de bataille ba champ de bataille ba buñ ko drone baa ngi fi drone baa ngi fi marché mu mag nañ dem ci nañ non duma dem si biir foofu noonu ñu teg sama bopp tamit dañuy dem kër ga nga lancé drone bi lancé drone bi waaw <laughs> buñ dem marché mu mag waaw ñun duñ bàyyi dara ñu xool lan la ñuy def duñ bàyyi dara <laughs> parce que ñun ci fair play la ñuy dox fair play la ñuy dox ñun ci fair play la dox parce que tamit. waaw match bu dul match dëmm. am na fi am na fi ñu commentéral ko yaakaar mu gagné gagné yi doon ay nokku national. ay revanche national. bu ne lu ne ay façon titre bu ne titre ko. waaw ah, moom ay leen titre lañ nokku national. waaw <laughs> noonu lañ ko jël. vraiment kenn Laobas Laobas extraordinaire. kañ leen laaw way man damaa gën a gis. laaw waaw di nuyu di nuyu suñu mbokk am na te nii civil nii nii. ñuy xeex ñii ngeen di gis ne ay civil lañ te mat nañ fi 4 waaw mat nañ fi 4 attention ba léegi ñoo ngi si kaw tribune